tey ànd ak délégation bu mag euh, bu jógee dakaar ak bu jógee ci département Tivaouane ñu ñëw euh, ndokkeel sëriñ bi ci gàmm gi euh, ziyaare ko ndokkeel ko ndokkeel famille yu Alaaji Malik yëpp ndokkeel kilifa di dey senegal yëpp ndaxte guddi gu mag la ci ñun jullit kon bu guddi gu mel noonu ñëwaatee xel yi day jëm Tivaouane loolu moo ñu indi Tivaouane donc ñu ñu ñu ñu donc ñëw ziare sëñ bi ndokkeel ko loolu daal moo doon suñu tànk ci gàttal tey fii ci Tiwaawan. waaw sama xalaat de yaakaar naa ni mooy xalaat nit yu bare bare parce que bi affaire bi amee ba tey euh, dañuy dañu am jaaxle ñu am jaaxle parce que ñi nga xam ni ñoo ñu jiite tey euh, bi ñu ñëwee ba tey dafa mel ni daal. Euh, dañuy ñuy digle sangu te setuñu kon nag loolu moo indi jaaxle wu Sénégal yëpp parce que président Lamine Diack dafa wax ni li mu jël ci xaalis boo xam ni moom la ñoom lañ daan tuddee argent sale parce que yéen dégg ngeen ñoom ñu ni argent sale waaw argent sale boobu nag président Lamine Diack jël ci Russie dafa wax ni daf ko dugal. ci campagne électorale lu 2012 campagne électorale lu 2012 nag am na ñoo xam ne ñoo ca nekkoon ci opposition bi kon boog forcément suñu xel dina am ci ñu mu dem ñi muy dem mooy ñi participer woon euh, ci campagne bi te ñoom ñëpp ñu contrôle maître Abdoulaye Wade kon boog ñun en tant que sénégalais am nañu droit laaj ñoom ñu wax ak peuple bi wax leen ndax mbir mi am na walla amul. bu amee ci ñan la amee ak ci ñan parce que mbir mi dafa garaaw mbir mi dafa nekk loo xam ni euh, dafay influer négativement sur le développement du Sénégal ndaxte bailleurs de fonds yi ak ñiy dugal seen alal ci réew yi muy investisseurs yi bu ñu déggee mbir mi dana tax ñu xaw a téye seen loxo te mbir mi bi mu amee ba tey France démb nit ñi dañ may woow dañ ni dañuy passer affaire bi en boucle maanaam télévision yi dañ ko yendoo passé États-Unis la même chose kon nag affaire bu garaaw la doo nekk naan tudduñu sama tur tudduñu sama tur c'est trop facile te nga bokkoon ci list ba c'est facile parce que article bi waxul benn tur loolu kenn gënuñu ko xam waaye financé na campagne électorale u 2012 campagne ba opposition am nañu ca nekkoon ñooñu ñan la wala ñun boog dañu dul ay nit ba xam ñan ñoo ci nekkoon voilà la question question bi nag mooy war nañu daal leeral mbir mi ba xam fu mu jëm parce que ñoom bi ñu ñëwee ba tey ñoo ni woon dañuy def gouvernance euh, sobre et vertueuse ni dañuy gouverner dans la transparence ah joxe fi ay ci tegtal yu bëree bari kon nag bëgg nañu mbir mi leer loolu rek la waxuñu jëmale ci kenn waaye daal ñi nekkoon ci biir campagne ba nekkoon candidat ñooñu la affaire bi joxoñ kon nag ñooñu la ñuy waxal ni jóg leeral mbir mi ba nga xam ni deru Sénégal dina set ah aussi mën na siggi ci àddina bi parce que mbir mi dafa dafa loo xam ni ni bu xaalis ba fa mu jógee ak nañ ko amee nekk na amin bu ñaaw a ñaaw boo xam ni lu leer la te ki nga xam ni mooy concerné bi nee na moom jël na xaalis bi fii la ko dugal